dëkk bi nag boo seet sax ñu dikk baas ko fii dëkk bi burul fi dugg waaw loolu cosaan la fi maanaam loolu ca dammeele la woon loolu la ñu bañoon dëkk bi am na genn new guñ fi daa wax new dammeel mu nga fële ca booru kii fi la Lat Joor daa jaar fii la sunu maam yi daa daje ak ñoom di ko ñaanal fa lay summi ko fa lañ koy sangate fa lañ koy takkale gàllaaj yi ba mu fees del dem xare waaw new gaa ngi fi ci dëkk bi mi ngi waaw waaw naw damel moom mu la wax naw damel mu ngi fii maanaam pendant ay ñaar téeméeri mètre moo sax téeméeri ñaar gis nga tund ba la nga seen boo ko jogalee naw gu gàtt la gu wuratu mi ngi foofu ñu ko wax naw damel maanaam tax ñu buur ñoom buur yi ñoom ñoo daa warmaal dëkk bi di dajafe ak ak sëriñ si loolu tax na ci lañ jafe loolu ba tey buur bu bëgg a dikk itam ñu cosaan la maanaam dañ ñuy génneel li ñuy waxtaan waxtaane ko ci bitim dëkk bi moo nu gënal daal comme ça par exemple loolu moo waral cosaan boobu ma naw dameel la tudd waaw naw dameel waaw fa la nekkoon ci mukaay la tor waaw bu mosaana jógee ngi gis waaw mosaan jógee ngi gis mbul bu mosaan jógee mbul jaar ngi gis directement bu jaar day teggi dëkk bi naw dameel la jëm pël gii nekk fi suñu wet nii mu ngi dëkkan waaw mooy pëlu genloora moo dëkkan fële ca gent ba seen maam mu ñax dem ba njoo ko foofu lañ ko suul sama maam moo ko toxali foofu sanc leen fële waaye ñun yooyu jamono ba ca jamono yooyu ba léegi siit loolu la ñu nekk képp koo xamante ne noo nga lay ñaanal wala muy buur am na placement boo xam ne buñ la ñaanalee faral yi daje ak yow jox ko dox jàmm ñëw fi jàmm rek ngay am waaye képp kuy dox ay moom boo fi duggee rek boo xam ne du baax ci yow waaw léegi nag gis nañ nawet